yow yow salaamaaleykum waa Bargny salaamaaleykum képp ku may suivre saboy réer ji from soxor fépp mooy loolu gars yi maa di jox RV mooy loolu bokk naa benn concours bu ñu naan Rap édition mooy loolu di leen jox RV pour ñu yox jëli ko temps ah. sabari jib doomu baax ñi lebu bi tawtaan naa yënga nga fi ma jëm ma a seen idée yaa jaru du si su bu dema rab dafa ne si man ngay demee taa su gën et na waa ma loo si man neexu ba neexu duma yen ko bami jobi waat eh, e memo waay dama job wutuma fi waay tema solo ho waay affaire xarit sama diras waay yene ma jaamu waay dañ ma yónni yaakam tima waay akira revi si seeta duma si may naara